nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di leen jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak wasaare làmb tey nag duñu toog koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb ñu bari naam miin nañu ko journée bi nga xamante ni mujj nañu koo gis fële ca stade Iba doxoon ci diggante Baye mbañoon Junior ak xale bi di Ndiaye nekkoon na bis boo xamante ni journée bu neex la ci wàllu làmb waaye tey dañu toog koo xamante ne mooy Ibrahima Diop gën ko xam ci Kajoor production mbokk yi fas yéene waxtaan ak moom bu bëree la ko gisee taxawaay làmb waaw fàq yi ci làmb loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom rawatina bis bu baax di nuyu sa caméraman bi di nuyu waa wasaare bi yëpp di nuyu Abdoulaat sama doom di nuyu waa Kajoor production bi yëpp di jël nuyoo bi ci jiital suñu papa Bourkhane Wade ñoom Cheikh Ndoye ñoom Mbaye Diallo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ak ñoom Abou Thiam Baye Zal Ndir ñoom Moustapha Ndiaye te mm. safu Kajoor production bi yëpp ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay te di leen baalu àq ci weeru koor gii ñu ne te di leen baalu àq di ñaan koor gii ñu ne yàlla nañ ci ñu ngi ci duggee ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ci génne ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu koor te luñ ci jaamu suñu borom yàlla nañ ci suñu borom nangul ci bark barke Seydina Mohamed barke alxuraan di nuyu sama sëriñ sama papa sëriñ Mourtala mu sëñ Modou Boussa Dieng di jógal nuyu nuyu soxnaam bi Mbàkke ak ñoom Baye Galas doomam. di ñoom ñëpp di nuyu suma papa di ko ak sumay rakk ak suma soxna ak sumay doom maa ngi nuyu ñëpp. Eh. mais lan moo la dugal Ibrahima lan moo la dugal ci làmb. waaye jii dugal ci làmb dama nekk doomu Pikine juddoo Pikine yaroo Pikine màggee Pikine yàlla def ma juddoo ci gox boo xamante ni ci pikin football rek moo nekkoon seeni affaire. muy Icotaf 2 cité Icotaf 2 connu jamono. voilà mm. judo. teg si suñu kër nekkoon këru sportif ndax sama bi jur sama yaay ñoom ñoo nekkoon dirigeant ñaay avant ñaay mi ngi tuddoon ISEC mm. tey xaritam bu ñuy wax du jàkk suma maam la. Mm. presque moom la ñu bàyyi woon suma yaay moo njëkkoon nekk président ñaay comme ni ma la ko waxee avant Ndiaye Isaac léegi jour yu ma ci daan football Ndiaye lañ daan fréquenté mm-hmm. ay ñoom Lay Diallo ñoom Samba Anne ñoom Mario ñoom ñëpp ñi ñi kàngam yi daan wax ci football ñoom Maguette ñaa mm-hmm. boobu suñu kër lañ daan nekk kër Pa Cheikh Dieng suma yaay mm-hmm. te mu judd ci famille boo xam te famille football la bu ma ñëwee tam ci suma côté papa suma papa mën naa ni bi mu ciy toll ci région de Thiès dàqoon ko fa góolu yombul moo fa dàqoon góolu sax ci ay jamonoom. Hmm. kon man mën naa ni sport dafa nekk ci man. Hmm. bon ma nekkoon bokkoon nag ci ASC <coughs> bu ñuy wax jamono bu Pikine. jamono fa suma lépp. Hmm. mu doon sama sama bu xool. ma def fa sama lépp. cité bi ma juddoo nag yàlla def cité boobu affaire yu bëri musul bokk ci seen affaire ñoom jàng rek parce que même Pikine nawetaan sax dañ daan wax ñoom ñooy ñoom ñooy tubaabu tubaabu Pikine mais man sama toog foofu bëriwul woon ñu bëri dañ yaakaar ne sax ginnaaw laa dëkkoon wala daaru wala yu demee noonu ndax ni ma xawoon lëj ma daan topp nag ay champion yu mag au passage ma ciy nuyu Eumeu Sène di ko féliciter ci victoire bu rëy bi mu jugee di encourager Bombardier te xam ne làmb noonu la. Mm-hmm. bi muy mujj arène national victoire la fa génnee Eumeu Sène mu fay mujj défaite la fa génnee ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndam li génnul ci réew mi. Mm-hmm. Eumeu moomu tey bokkoon naa ci ñi daan ànd ak moom. Mm-hmm. muy ñoom Boy Niang ñoom Ama ñoom sama kanam la ñu takkee ngemb. ñoom Baboy ñoom Tyson Pape Cissé. Mansour Diop Ndiaga Diop ñoom ñëpp dama leen daan topp ci seeni làmb kon loolu lu ma yàgg bëgg la. gan laa en tant que promoteur. en tant que promoteur. gan laa en tant que promoteur. Mhm. mais duma gan ci làmb. pour ñu xamul. Mhm. duma gan ci làmb am na nag ñoom dañ ma jaay jàpp nañ ni comme si que ku xamul làmb la rek ñoo rek tëb tëb rek dugg ci làmb. Mhm. mais ñi ma xam dëgg. xam nañ ne duma gan ci làmb. solo ban moment nga jàpp ni il est temps kat jot na mu dugal sama xaalis ci làmb wala boog ma doon promoteur làmb dagg licence dugg ci journée xalaat affice bi nga war a njëkk a taxawal nan nga def ba taxawal ko ak ban moment nga jàppoon loolu. waaw bi ngay xalaat xam nga àdduna moom léeg-léeg di nga dem mais lu ci nekk rek dafay am waxtu bu waxtu bi jotee rek dina mat su waxtu bi jotul nag du mat. bi may njëkk a dox Balla Gaye Tapha Tine laa doon dox. waaw bi may njëkk a ñëw. dugg si ci làmb. boobu man ak père Bourkhane Wade. wuyul ko. ak père Bourkhane Wade. yàlla def nit loo def ne dañ ciy am ndigal ci jamono boobu bi ma koy dox. maa ngi ciy waxtaan ak Père Bourkhane ñu dem di dox combat yooyu. biñ ci loolu avant Covid bi la avant Covid bi di dugg si. ñoo ngi doon dox tam boobu Gris ak la de Guiers ci jamono jooju. mais jamono boobu bi ñuy dox. tàggoowuñu. tàggoowuñu mooy tàgguwuñu suñu wéyjur. bi mu yëgee ne maa ngi dox làmb. bu woo ba ma ñëw ma ne affaire làmb yaa ngay dox laa bëgg nga dakkal ko ma mm-hmm. bàyyi suma sëriñ yëg ko moom it ne ma naa ci génn mu sëñ Mutula mu sëñ bu sa moom suma papa la mu sëñ Fallou mm-hmm. bi ñu ma nee bàyyil comme nit moom da am kilifa wala jinne doon sa kilifa mm-hmm. te ñun suñu lépp ci ndigal lañ koy teg gone dina toog ci suuf mag toog ci suuf mag muy seen la ca kaw te gone gi du ko seen yàlla mi dara tuwul bi ma boolewu ma ci xooluma ci lu ma ci naqari dama ci xool lu ma neex ma bàyyi kon ne nekk samay activité waxatuma lu ci jëm Père Bourkhane wax ma ne ko nañ bàyyi mu ne ma nañ ma ne ko nañ bàyyi leeralu ko dara. Mm-hmm. mu may woo su ma woowee parfois ma jël ko parfois du ma ko jël parce que bëggatu ma woon dégg waxu boobu. par mm-hmm. exemple su ma soxna sax la doon woo téléphone. bu wooyee sama soxna sama soxna paas ma ko man ko père nañ bàyyi rek nañ bàyyi noonu yàlla mi dara tëwul ñu toog ba ci yàgg euh, bi mu jotee nag hmm. comme góor gi moo ne moon toogal hmm. mu joxaat ma ndigal boobu moo jibaat ndigal googu moo jibaat tax ma ñëw duggaat ci làmb te lu jiitu loolu Burxaan dégg na ci lu ne hmm. du tëgg du def lii sa king fi indi du tëgg lu ne dégg na ma xam li ma xam toog noppi mais bi ndigal lu jubee bi ma góor gi waatee na ma ndax mi ngi sa xel ba léegi ma ne ko lan ci mu ne ma boobu génn woon naa ko sax sama xel man loolu day nekkatul woon sama xel mu ne ma jox naa la ndigal demal nga tëgg. Hmm. sama sëriñ tam ma am ndigalam. Hmm. comme ñaar ñooñu ñu naan ma defal ma def ñu naan ma bàyyil ma bàyyi. Hmm. biñ ma nee defal damay def te xam ne njariñ laa ciy gis. te rëccuwuma it biñ ma nee dugal rëccuwuma. waaye ci jamono boobu après la ma ci jàngatee mooy dañ ma tere deux mois après ci la bi dugg. moment biñ Covid bi dugg. kon tey bu ma dëgëroon bopp rek. Mhm. amaana doon naa am lu ma metti wala sama alal seey wala sama alal yàqu te du ko jar moo tax nit lépp looy dugg rek nañ ko dugg ci kilifteef ak ndigal ci ndigal laa duggee ci làmb parce que dama ko bëgg suñu sport national la ci wuñ ko fenn ñu ñëw ko moom mais ci biir loolu tamit yàlla suñ yàlla suñu borom def mi dara taw lu ñu am fii lañ ko amee ci réew mi ñun war nañu bokk ci ñuy contribuer ci développement réew mi ñu xool ñu nit lan lañu ñu mën a apporter ñu suñu ñax mu néew mu bëri ñu def ko ci. Mm-hmm. ñu xool ne tey làmb ji licencié bëri na. Mm-hmm. journée yi néew na promoteur yi néew na te licencié yi ne nag dinañ ci jàpp ci développement bi parce que créer ay emploi la ndax tey boo joxe ay mbër avance. Mm-hmm. avance bi nga leen jox yàlla day def dinañ ci am lu ñu yóbbul seenu njaboot. dèjà am na loo créer foofu loolu moo tax ñu que ñu dugg si pour mën a bokk ci ñuy créer emploi. am na solo journée. kan ak kan ñoo bëre grand combat bi. sama première journée mi ngi nekkoon la 9 janvier diggante Ndiaye Tine bu Bawal ak Baye Mandione Junior bu Thiaroye Géej ñoom ñoo ko bëre woon. Mm-hmm. bari wax nga sànq sa jaar jaar fi ka jaar ci làmb ku demoon bay démarrer Tapha bala Balla Gaye sa première sortie ci làmb nga tëgg Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior ñu bari duñ ne kii est lam doon yootu ci kaw du daa bëggoon buzz wala daa bëggoon promotion ba taxoon mu yootu lool. jërëjëf ñun ku ñu xam boog laa. Hmm. bu dee tour la bëggoon wala buzz. nañu am feneen fu ñu koy amee waaye fa bokkul ak làmb. Hmm. ndax fii réew mi ñëpp fi lañ dëkk. Hmm. ku bëgg buzz di nga xam noo koy utee. di nga xam fi koy utee tey mën naa ne avant may dugg ci làmb man ñi ma xam avant may dugg ci làmb dama am tur boo ko laajee Lamine bu Lutte TV dina la ko wax ndax Lamine bi muy bi muy gàddu pot la man ak moom yàlla mi dara nag def Pikine ma am fa sama tur teel a dem lool sama tur dafa dem fu sama jëm àggul mm-hmm. bu buzz moo tax ñu dugg ci wut tur taxul ñu dugg ci hmm. tey li ñuy liggéey yàlla def na ñu xam ñu ci li ñuy liggéey lu dul bokkul ak làmb hmm. yàlla def na ñu xam ñu ci ba bitim réew xam nañ ñu ci bu baax hmm. ñu ci jëflanteeg ak waa ay waa bitim réew kon tey du wut tur wala pour bëgg buzz moo tax ñu dugg ci ndax ay buzz ak ay tur yooyu yooyu amul sens ku mu tax jóg ku nekk da sa gis-gis dafa soriwul. Mm-hmm. wala sa xam-xam dafa bëriwul. Mm-hmm. ndax tey bu fekkee da nga ne da bëgg bës bëgg tur nga am as tuut mënoon naa dem ci dîner de galaay wala si soirée di baatere foof mm-hmm. foofu gën a gaaw pour am fa tur wala nga am fa bës. mais bëgg bës ak tur loolu taxul ñoo jóg. xam nga fekk ne boo ñëwee. nekk ak ay mag. yu ci bëri sax ñoom ñoo may mag ñi ma àndal ñoom ñoo may calmer ku si mel ni ñoom Bourkhane Wade ñoom Cheikh Ndoye ñoom Mbaye Diallo damay bëgg dara sax ma ñoom ñoo may bës ne ma doo ko def. Hmm. ma toogaat te xam ne tam ay nit tam doo leen woo ngeen ànd di liggéey ba pare nga leen di jiital ba di leen fa xasal doo ko def li ñu am ci yow cër bi ñu am ci yow da leen koy delloo te xam ne dañu war a am ci yow baat. Hmm. parce que la tax ñu daan laan bu doxalee noonu ñoom xam nañ ko amaana xam nañu yow loo xamul. Hmm. muy Garga 2 Mama Lamine waa Vox Arena ñoo organisé woon yàlla suñu boroom mi mi nga xamante ne dara tëwu ko yàlla dagal dogal ni loolu mujjewul antu ci ñoom antu ci yow komba bi bi nga koy démarché danga xamoon fi mbër yi fayeeku fi ñu yem nga ñëw yem foofu wala yokkal nga leen de plus wàccaay bi metti woon na wala metti waa jili foofu dañuy sant yàlla daa bu sant suñuy wayjur dañuy sant suñu borom bu baax ndax li tax ñuy sant yàlla mooy jaam bi jéem mu sotti yàlla la ni di nga jéem te suñu borom du ko sottal nga jàpp ne ak yaafuus la dug yaafuus dafa am suñuy nawle yi ci nekkoon yàlla suñ boroom def ñoom ñu sabablu woon pour pour tëgg ko mm-hmm. yàlla antulu ko du seen yaafuus du seen ñàkk mën mm-hmm. mais suñ boroom moo ñëw ak dogalam mm-hmm. nit di nga tàmbale mais xamoo ndax di nga àggale ndax yàlla moo ñu gën a jege suñu buumu xool moo xam liy àgg ak li dul àgg bi yàlla defee dogalu borom bi wàcc ci seen kaw ñoom ba tax combat bi mënul dem nekkul woon ci sama xel. Mm-hmm. mais looy gën a dem ci làmb di dégg bëgg-bëgg amateur di dégg bëgg-bëgg askan bi. Mm-hmm. ñu gis ne comme la dafa nekk demande sociale nit ñi bëgg ko ñu dox ci waxtaan ci waxtaanu benn fan la. Mm-hmm. ci benn fan lañ ko waxtaan ñu jox leen avance ci benn fan. waaw mu doon nag ñaari cas yëpp ko tëgg yàlla metti luñ ko. Mm-hmm. yombaloon ñu nag. ñëw nañu nag ñoo ngi jéem pour tëggu ko. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla mi àggal mu àggal ko yàlla mi sottal mu ko. Mm-hmm. mais dogal bi wàcc ci ñooñu ba àggul. suñ borom mun na ko wàcc ci man. jéem nañu nag xamuñu ndax yàlla dina àggalam déet. waaye ñoo ngi ci yoonu jéem pour bokkoo tëgg. war waaw bi suñ boroom dogalee daal <clears throat> ci kattanam ak ci mbaaxam ak ci mën-mënam yàlla def nañ ba fii nii nii may waxee ak yow nii nii nii nii nii combat yi ci nekk yëpp yëpp yëpp yëpp dix combat yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp wàccoo ak ñoom ba fii may waxee ak yow nii mhm. yaakaar naa ni amul lenn luñ may topp man maa leen di topp fu mu nekk nii li ma leen di topp mooy di leen ñaanal yàlla may leen wér ñoom ñi ci am contrat ñëpp ba ñu àgg ci ak jàmm ak salaam le 22 mai. ñu ñëw ci jàmm ñu def ci feet ci jàmm ma jox ko askan bi ndawanal. ñëpp ñibbiwaat ci jàmm. waaw. combat yaa ngi ci suuf ba léegi wala combat yooyu man dèjà taxawal nañu mbay guy gi armée waaw ñoo ko bëgg a yóbbu mois de juillet pour tëjee ko suñu saison. ñun làmb moo ñu tax jóg làmb lañu bëgg làmb la ñuy dund. ñoo ngi fi pour làmb ñoo ngi fi pour jeunesse bi tey làmb boo xamante ne tey jii laaj na pour ñu tëgg ko. dinañ ci jéem liñ ci mën. luñ ci yàlla sédd ñoo xam ne mooy suñu cër. lum ñu ci xañ ñu sante ko ko. Mm-hmm. am na solo diggante rëg-rëg ak Sa Thiès da nekkoon ci suuf. combat boobu d'ailleurs maa ngi félicité Papa Gasson. Mm-hmm. moom mi ko décroché. Mm-hmm. di ko ci ñaanal yàlla suñu borom mi am ndam yàlla may ko ci ndam yàlla may ko ci réussir à mille pour cent ci barke Seydina Mohamed. te incha allah rabbi dina ko dina ko ci am yàlla defal jàmm ñaari mbër yëpp muy Sa Thiès muy Reug Reug social askan bi bëgg nit da ngay wax dëgg te yàlla rek tax maa ngi ci woon mooy li ma wax nit da jéem mais yàlla mooy sottal yàlla sottalu ko ci ñun dañ koy sante yàlla ci kim ko sottal suñu papa la lu ko ci ñaanal réussite à pour cent di ko ci ñaanal ndam te incha allahu rabbi dina ci am ci kat ci wàllu ci wàllu ci ci ci fan la tagee da woo ñaari mbër woo seen ménageur wala mbër nga woo fan nga jaar ba affaire yi tag ak fan la tagee non tag bi moom mën naa ne ñaari mbër yi ci man suñu boroom la mm-hmm. moom laa la di jaam bi day jéem mais yàlla mooy sottal. boo tuddee suñu borom rek lépp day tëju kot lay doon de day tëju de. ndax ñu koy tudd mooy nit ki am yàlla moo koy jox li muy ñàkk yàlla moo koy xañ. Mm-hmm. jaam bi tëbul di nga lu nag. Mm-hmm. mais yàlla mooy joxe mooy xañe bu la joxee danga koy sant. Mm-hmm. bu xañee danga koy sant. yàlla moo ko sottalu tey mën naa bëgg. mu yomb ci man loolu ci prix. yàlla du ko sottal. yàlla sottal ko ci keneen mu mu seer ci moom lool. yàlla mooy sottal. jotu cee jël sa avance ci ñoom ñaari mbëri. li ma la mën a wax daal mooy doon naa ko dox. am na ku ci jël avance sa avance loolu mun nga ko confirmer. li ma la mën a wax mooy dégg nga ni am na ko ci jël avance avance. gay man man xam nga seen gars yi li may man man bugg bugguma di dox ci dégg naa. Hmm. waaw man damay bëgg di dox ci lu concret. ci mbër moo xam ne jox nga ko xaalis si xaalis boobu nag lañ xamul ba xam avance la wala lu ngeen seq mais am na ci mbër moo xam ne jox nga ko xaalis. waaw xam nga gars yi moom dañuy wax rek boo boo boo boo jëlee mbër ak mbër bu mu mën a doon bu ngeen seexee jàmm am ay relation ñu jàpp ne xaalis moo moo nekk seen diggante ci relation bi. Mm-hmm. ni digg man mën naa am ak yow relation te xaalis du nekk suñu diggante. mais xam nga dëkk bi ñu bi ñu nekk mooy doxee noonu. Mm-hmm. suñu gisee ñaar nit am yenn relation rek dañuy jàpp ne xaalis moo nekk seen diggante ci relation bi. Mm-hmm. man mbër yëpp sumay xarit lañu mbër yëpp laa amoon relation. mbër yëpp. doon naa ko bëggoon naa ko dox naa ci mais yàlla sottalu ko yàlla mooy joxe yàlla mooy xañ. Mm-hmm. sottalu ko suba yàlla dina ma jox leneen. Mm-hmm. te yàlla jox na ma garga de ma maama Lamine te pourtant am na ci ñu ko nekk. Mm-hmm. ma sante ko yàlla. yàlla jox na ma ar ci mbay guy gi ak armée amaana am na ñu ko bëggoon. te noonu suñu borom joxeem noonu noonu la may xañee yeneen ndax ñàkkul ne su ma yeneen nawle ñoo ngi ci woon. suñu borom sottul ko ci man damay sant yàlla. lu mën a xew nit li li li li am doomu aadama bi li li li liy ñëw ci sa kaw ak li ngay am yàlla moo la koy jox yàlla moo la koy xañ yàlla nag dañuy ñaan leen mooma may leen su ma leen may ngeen sant ma dool leen mm-hmm. mais ci biir ñaan leen mooma may leen moom da ngeen sabablu su ngeen sababloo ma fekk si leen si mm-hmm. nañu def nañ li ñuy war mais dernier mot bi ci moom lay jóge moom suñu borom Garga 2 Mama lan lañ war a mën a séentu ci ñoom ci wàllu événementiel lan la Kajoor Production di waaj no balaa ñuy dugg foofu. Hmm. dama bëgguñu ñu leeral benn benn benn fenêtre ñu tëj foofu ba pare. Hmm. muy diggante li nga wax ñaari mbër yi am na ku ma joxoon avance ak ku ma joxul avance. Ah, waaw dama bëgg tëj foofu ba pare. après ñu dem fële. Hmm. foofu li ma bëgg leeral askan bi mooy. nit di nga am loo bëgg. yàlla du sottal. bu sottee ci keneen. jàppal ni sa mbiru bopp la. Mhm. combat boobu sama combat la. Mhm. waaw. Sa Thiès tax mu nekk sama combat. Mhm. parce que suñu papa moo ko taxawal. suñu papa moo ko taxawal. du combat am. ñun jeunesse bi ñoo ko moom. combat jeunesse bi la. ñi mu boole ay jeunesse lañu. ay jeune lañu. ki ko tëgg jeune suñu nawle la jeune la muy makan kon alalam suma alal la. moo tax man la sama combat la. alalam suma alal la. Mm-hmm. sama alal alalam la kon tey ji am seeg sot seeg def si la. Mm-hmm. mel na ni maa ko taxawal ndax sama alal la. Mm-hmm. ki ko tëgg suñu papa la. kon suñu yëf la loolu ñun ñoo ko moom. ba léegi. ñun dégg moom laa la suñu alal la ñun. mais kantaan dama jox benn mbër avance joxuma kii mbër kay boo ko joxee avance dina la bëreel. kan moo jox mbër avance du la bëreel. mun ngeen di négocier combat comme ni gars yi di def nga dagg njëg wi génnee benn somme jox ko ne ko téel bis bu ma déggoo ak sa ménageur loolu bokk ci avance bi. ma lay wax tey man duma ma daggal benn mbër njëg. Hmm. du daggal benn mbër njëg. dama nga laaj ménageur yi ma jot a engagé. du suñu njàmbaar du suñu ngóor du suñu man man dimbalu borom bi kese la. Hmm. jàmbaar amul ku yàlla dimbali moo fi ne. mais mbër bu ma waxaale bu ñu jubóoyee cinquante pour cent yi laa lay bu euro régulariser jotee ma dem régulariser. combat Garga mi ngi nii. bal bi des na ñaata weer. des na weer ak lu teg. weer ak lu teg. naa ba mu des une semaine ma dem régulariser. Hmm. du ko def. régularisé naa ko jaaytin baa ma ñoon junior bañ ca tolloo deux mois avant combat bi régularisé naa ko ak bëri ci war a bëri yëpp mi préliminaire yeeg yëpp dam nekk ci leneen man du ma dogal njëkk ak mbër sequma ak mbër dogal njëkk am lu ma seq mbër mi ñu waxtaan waxaale ba juboo nangam nga may fay ma dagg ko cinquante pour cent nga dem ma dem après lu ma ci yàlla sedd ma xam ne loolu la ma ci yàlla sédd te Garga 2 Mama Lamine bi mi ngi nekk drapeau Abdou Karim Sall. Mhm. maire Mbao nekk ministre de l'environnement. Mhm. nekk koo xamante ne kuy taxaw banlieue bi. Mhm. jàpp ci banlieue bi. di jàppale jeunesse banlieue bi tamit. ñu leen jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax rawatina nag diggante mbaaw ak Pikine bi. ñu ciy jàpp bu baax xawma kan mais moom li ko pré ndomba tànk li ko président jox. féetalewu ko ci boppam féetalewu ko ci ay mbokkam li ko warloo ak askanam li ko warloo ak jeunesse bi loolu moom mi ngi ci ñu ñaan yàlla nag maire bi nga xamante ne moom la nekk yàlla oyofal yen bi ci barke Seydina Mohamed barke alxuraan mais bés boobu li ma la ci mën a wax mu nekk bésu feet nekku bés boo xamante ne dañ ciy réconcilier diggante Papa ak Siteu ndax Garga Papa Sow moo koy indi. Maama mm-hmm. Lamine moo koy indi. ku nekk sa ñaar liet naa la. Mm-hmm. kon bés boobu dafay doon bés boo xam te ne bésu fête lay doon. Mm-hmm. non violence soxla wuñ ci xeex soxla wuñ ci xuloo soxla wuñ ci dara looloo waral keroog ñoom ñaar bi ñuy def seen point bi may def point de presse bi. moo waral ñu bokk toog. def ñu ñoom ñaar ñu dem jeu billard bi ñu jeu billard ñu boole leen taxaloo même seize toog pour joxe exemple bu rafet ci làmb ji xam ne ku ci nekk mooy trésor moroomam làmb ji après day jeex mais dafa am relation am te ne dafay des bés boobu bésu feet lay doon bés boobu bés la boo xamante ni dafay doon loo xamante ni tey képp kuy dundul làmb tey dañ ciy gis sa bopp dañ ciy yëg sa bopp ba ci sponsor yi sax xam ne lii image bi lañ soxla ci làmb soxla wuñ ci xeex soxla wuñ ci xuloo dinañ ci teg benn prix boo xamante ne supporter bu ci gën a discipliné damoo sées damoo dara yaa koy yóbbu incha allah rabbi Gora président des jeunes amateurs am na ci drapeau mm-hmm. Pape Sarr l'infatigable Pikine am na ci drapeau te am na ci ay magi làmb ñoom seen ñoo ngi ci làmb mm. dañ leen ci war a delloo njukkal ku ci mel ni Père Gora photographe. Mhm. ci bés boobu dinañ ko ci delloo njukkal. waaw ndax ku sonn ci làmb la te gis nañ coono bi daj ci làmb mu nekk mag mu yaru tamit. Mhm, mhm. te bu soobee yàlla incha allah rabi nañ ko ci delloo njukkal ak ñeneen incha allah ci bés boobu. jërëjëf leeral bi am na solo lool maa lay jaajëfal bu baax ndax wolof nee na lu dëfandoo ci nag bi xajandoowul ci cin wi kontaan nañ bu baax ci dalal bii ñu dalal fii ci Kajoor euh, immobilier. waaw loolu ñu maa gën a bëgg bàyyi jili ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey am Kajoor ñaari branche dafa am Kajoor immobilier service am Kajoor production Kajoor production mooy nekk ci làmb ji Kajoor immobilier service moom moo nekk ci wàllu bâtiment yeeg terrain yeeg yu demee noonu foofu ñu mel ni ñoom Abdoulat Abdoul Fatah Kanji ak ñoom Absa Dia ñoo ñoo ñoo fa nekk ay ñoom Daouda ay ñoom Khady Fall ñoom Ousmane Ciss ñoom Moustapha équipe bi yaatu na quoi ñoom ñoo nekk ci wàllu Kajoor immobilier service bi yàlla nag man la jiital ma ne ci bopp bi du njàmbaar du ngóora du pas-pas numéro borom bi la ñoom contentement di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp te xam ne fi ñu jàpp foofu la incha allah rabbi lépp dina ñëw mooy nuyu suma xarit sumay xarit yi ma màggandool foo nag ñoom ndax nit baa jiili mm-hmm. da ngay fàttaliku sa démb àdduna mënul neex mukk ba nga fàtte say nitu démb mm-hmm. say nitu nitu tey buñ la gënal say nitu démb mm-hmm. sumay xarit yi ma foowoon dool màggandoog ñoom ñoom Cheikh Touré Pape Samba Fall Omar Dia Yankhoba Gaye sëñ Mbacke Cissé Alaaj Diop ñoom ñëpp suma limee jamay jum ñoom Mamadou Thiam mm-hmm. maa ngi leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay suma benn grand ñoom Mbaye Mbaye Ndiaye Zimbo depuis États-Unis Mm-hmm. ak suma benn maam bu nekk Italie Baye Malick Tunkara maa ngi koy nuyu au passage di bu baax ci weeru koor bi mm-hmm. ne ko nag nama xaar bu baax nama ma ndogu bi maa ngi ñëw mm-hmm. di nuyu ñoom Yoro Diallo suma magu soxna la moom mi ngi depuis Angleterre maa ngi koy nuyu bu baax ak ay rakam ñoom Vieux Malick Papis Diallo ñoom Bira famille bi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu suma goro nag bu baax a baax Assane Diallo ba Assane ak suma yaay Ndey Jéey di nuyu sumay nijaay may jël nuyoo di ko teg suma loxo nijaay Tidiane Dieng mu jox ko famille bi yëpp ak suma papa. Mm-hmm. ñoom ñëpp maa ngi leen di leen ziar bu baax a baax daal di comme contentement ci dalal bi nga ma dalal ci wasaare TV daal bég nañ ci bu baax daal. Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ki nga xamante ni mooy Ibrahima Diop Kajoor Production leeral yu am solo yooyu nga xamante ne leeral na ko ci làmb ñuy ñaan. lépp lu mu séentu ci affiche yi mu tëgg ak journée yi mu séentu ak li mu bëgg ci làmb yàlla defal ko ci lu kawe njortam ndax ñaan nañ yàlla képp kuy promoteur nga dugg ci làmb rek li tax nga dugal ci sa koom-koom yàlla suñ borom defal la ci lu kawe sa njort ñu koy jaajëfalaat bu baax ci disponibilité am mbokk yi di leen jox dig daje. Mm-hmm. waa Kër Massar maa ngi leen nuyu. malgré que Pikine laa juddoo. Mm-hmm. fa laa yoroo fa laa màggee. Mm-hmm. waaye yàlla def na ni. Kër Massar la ma suñu boroom jox diwaat màkkaan ma fi yeewoo mhm. ma leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar ñoom ñëpp di jox seen wàccuwaay ñoom abu Sey ñoom ñor cent pour cent Kër Massar bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag sumay doom mhm. ñoom mama Xadi Ngoone Amaat ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu sumay doom di nuyu sama soxna moom mooy sama taaw bu jigéen moom waaw moom mooy suma taaw bu jigéen waaw sama sama soxna la sama doom la waaw mooy suma taaw bu jigéen mhm. am na solo mbokk yi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf.